ay ci am na solo donc euh, baan dafa mel ni xalaas bi nga indi tey waaw auditeurs yeeg internet dinañ leen gate lool lool waaw dinañ leen gàtte dinañ leen gàtte am na ay euh, photo yu ma leen yónnee hmm. euh, mooy wax waxuma bi njaay doon wax de. Ah, mooy waa ji téye oto bi nekk ci oto bi téye benn bébé ba ak ak benn vidéo kuy dugg si nii ci benn salon. Hmm. kooku soo leen xoolee ab silmaxa la. gis ngeen ko noonu. Hmm. silmaxa bi nag man. musuma gis silmaxa bu mel ni kii ndaxte kilifa yi ne ci réew mi surtout ñi ci nguur gi ñim ci dóorul bariwul moom dafa dem semaine passée samedi bi passé defe naa euh, Thiès kër Mbay Saint-Ger mhm. ca Mbay saint mhm. ñu koy ziar bu baax a baax ñëw ni ko dama war a opérer samay bët bëggoon ko ma ci jàppale mu wax ak may Singer ba may Singer ni ko naa la jàppale cent mille francs waaye da nga ma jox numéro docteur beeg yooyu suma pare naa woo docteur bi la ma koy jox ma jox ko ko. Mhm. waa ji am fa mu jaar ak moom bay Singer dem dem dem ba xam ne lii ay dóor la contacté ñu man moment bi may wër waa ji. Mhm. ndekete waa ji mi ngi woote ci cent cinquante dix sept dix waa ji ci boppam moom soxla ñu. bi mu ñu mhm. jotee nag démb ñu yebal fa passe partout passe partout dem fa waxtaan ak waa ji. Njaay. Hmm. Njaay tey gars yi dégg. Hmm? Njaay déglul. depuis presque mun naa ne cinq ans damay yëngatu ci wàllu dóor amul lu ma ci amul amul ku ma ci dóorul du ma ko def tamit comme nit ñi ko nit ñi di defee di dóor dóor bu salte wala dóor boo xam ne après da nga koy dem ci yoon mais damay dóor dóor boo xam ne tey jii nii man sama jëmmi bopp xam naa ni dóor la parce que di dem ci nit ki am foo jaar ak moom mu yëkkati àllam jox la te tey jii bu ko xamoon du ko neex dara gis da ngay am changement ci sa man jeune laa tollogu ma fu may amee bu fu may ñàkkee j'ai vingt huit ans te dama xam ne je dois fonder une famille war naa am jabar war naa am doom te tamit dama seetlu leen xaalisu dóor dóor amul lu ma ci amul mën naa ne actuellement fi may waxee yow xanaa lu mu gàtt gàtt lekk naa ci cinquante millions mais amul benn stabilité bu ma loolu indil aw ma ci oto aw ma ci kër aw ma ci dara lu dul ni ma koy amaatee noonu lay demee ma dem ba xam ne nag potentialité bi ma yàlla may d'intellectualisme bi ma am nekk intellectuel pourquoi pas ma jubale ko ci foo xam ne fu positif lay doon te mooy ëpp li may apporter sa tey jii may jël sama xalaat ak sama expérience di ko def si dóor muy doon lu négatif. léegi ci mbirum dóor boobu. say façon yi ngay opéré. laa bëgg ñëw ci balaa ñëw ci li nga ci am ni ngay opéré nan la. bon yàlla dafa am nattu bu ma teg. si biir nattu boobu nag ma koy sant parce que natt boobu nattu ñàkk gis la. si loolu samay parents soutenir ma ci wax dëgg yàlla amul luñ ci deful samay propre parents ndax biñ ne bi njëkkee ma dal ñoo njëkk génnee seen xaalis dafa ay prêt bancaire yëpp dama yóbbu ma faju sans suite par la suite première euh, deuxième intervention bi ma dem xool ay personnes ku ci mel na Aliou Sow comme ancien élève laa woon et tout ak yenn école et tout ça ma dem bi ma demee moo toog waxtaan ñoom wax leen sama problème na dama war a faju ñu jël xaalis boobu jox ma ko bi ma demee ba si clinique bi war a faju affaire bi surtout ñu may laaj une intervention de cent cinq millions pour ma mën a gisaat ma ne waaw mais pourquoi pas man lii ma ma ma exploité ko man damay jël sama kayit bi ma feebar dem si nit ñi toog waxtaan ak ñoom ñu jàppale ma pourquoi pa ma exploité ko su ma ko exploité dinaa dinaa dinaa am plus d'avantage te noonu la demee effectivement bi ma demee sa hôpital bi ñu wax ma ne ma tey jii mënuma gis bi ma exploité loolu dem ci nit génnee ko kayit yu concret te am na ci ñoo xam ne dañuy vérifier bu ñu vérifier li ñu wax dafa dëgg la lu am lay doon. te boo amee dañuy yëkkati li nga xam ne man loolu laa soxla jox la ma dañuy yëkkati li nga xam ne man loolu laa soxla ñu yëkkati jox ma ko moo tax nag ma xam ne après ma exploité ko nag depuis presque cinq amul si ku ma ci toogul du ministre du du du du première daam du du directeur de société du du du amul ku ma ci lekkul xaalisam parce que man déjà du ma def faux usage de faux kii di may yor de dañ koy tu concret loo xam ne clinique moo may defal début indil ma ko. maanaam sa kayit kayit yi nga xam ne. pour début la pour faj sa bët yu muuru moom ngay wër ci kilifa yi. Mhm. dinañ ko jox ñu la jox xaalis nga koy lekk. nga koy lekk effectivement te alors que am na benn mën naa gisaat mais li ma mën a gisaat du tey jii ma dem si kilifa bi cent mille francs bi mu may jox wala deux cent wala trois cent mille bi wala cinq cent mille bi wala un million bi ma ma faj non man pour ma gisaat il faut soixante cinq millions te pourtant def naa ay demandes yu bëri yoo xam ne dama leen def préciser loolu ne leen dugal dossier yi ne leen man j'ai pas besoin de l'argent nañ ko dugal ñu fay ma faju foofu mais koo ci dem dañ lay defal faux promesse ak yooyu noonu ma ne ah pourquoi pas comme man li ma bëgg mënuma ko am te beneen côté bi leneen li mën naa ko am pourquoi pas ma exploiter loolu. léegi léegi léegi par exemple yow xaalis bi nga ci encaissé bi nga def toll na parce que ëpp na cinquante cinquante man fi ma nekk man maay fayal sama bopp location man maay fayal sama bopp lekk bu ma naanee man la bu ma lekkee man la lépp man maa koy defal sama bopp. tey jii bu ma amee benn 500000 denc ko sama compte ne ma dem lijjantiwaat beneen 500000 mu mat 1 million beneen balaa boobu di ñëwaat ba fekk ne utiliser naa 500000 bu njëkk bi ci ay fin yoo xam ne fin de wala jënd yére wala jënd lekk wala li ci ëpp ma yëkkati joxewaat ko nit ñi. parce que comme li ma la wax ci début bi xaalis bi dama dem ba xam ne xaalis bi barkewul. parce que peut-être dem nga si nit wax ko mu jox la intention bi la ko nit bi joxe intention bi nga ko amee bokkul dama dem ba xaalis bi du taxaw wax dëgg yàlla nag actuellement ni ma gisee nii man duma ma tux du naan te mën naa ne tamit jigéen yitteelu ma xaalis bi du dugg ci loolu xaalis bi li muy dugg sax doo ko xam. nga ni kii di wax ni silmaxa la. silmaxa la élève officier la woon mais dafa inapt léegi nag suy dem di dóor ci yenn yi day dem ni leen man officier la maanaam liet naa laa boo xam ni dama silmaxa war a opérer bëgg ku ma dimbali te ci kilifa yi ñu nekk ci état bi ak euh, yenn directeurs yi ñoom lay war di dóor déglu de deuxième élément bi njaay hmm? ñu bëri tey jii maa ngi leen di fajal seen soxla ñu ngi am apport ci man te xamuñu ne fan laa jëlee xaalis bi xamuñu fan laa koy jëlee. te liggéeyu ma. dañuy léegi léegi yow kilifa yi ngay yi ngay dem. nan ngeen def am accès ci ñoom ministre yeeg. DG yeeg ak yenn kilifa yu ñuy yu ñuy tudd ci réew mi ñëpp da yoo xanaa ci président rek nga demul. waaw ci laa demul lu mën naa wax loolu noonu. doon nga sa eh, mën naa wax loolu. parce que jabaru président dama dugal sama dossier ak par l'aide de nem si yàlla Fatou Daniel Diagne. moo ma jàppale woon. bi ma ko wéccee ko ça fait un million. sept cent mille yëpp presque dafa tomboon ma doon voyager pour sama opération bi ma dama leboon billet ma fay billet bi li si des mën naa ne dama ko joxe lépp DG itam en général comme ni ma la ko expliquer sànq avant dama daan dem su ma demee peut-être sama ñàkk gis day tax benn secrétaire yi dañ ma daan yërëm yenn yi dinaa am accès ci ñoom yenn DG yi wala yenn ministre mais li ci ëpp euh, dama amoon couverture couverture bi mooy lan dama demoon ne leen peut-être euh, ancien élève officier laa woon mais daf dama teel a génn dama def test sotti ñu rocc ma léegi ma su ma daan dem ci ministre wala directeur su ma nee simple nit la Pape Mamadou Kane mooy seen ministre wala DG dañ ma naan il faut nga audience wala yooyu. benn jour ma essayé ko avec une directeur de la société ma ne ko liggéey naa laa ci saa si ma am accès ci moom ci saa si ñu tijjil ma buntu ma dem gis ko wax ko sama soxla mu faj ko. d' accord parce que ci wax jooju dañ naan. Hmm. par exemple ñi nga xam te dañuy wax ci yow dañ naan gum leer leer naa bu gumba bi. Hmm. leer naa bu dul gis bi. Hmm. bu dul gis bi loolu la ñuy wax. kon foo dem da ngay boo déclaré leer naa nga da naa si problème sax. ba ñu ba ñu convoqué moon au euh, bi ñu ma waxee tam ma expliqué leen. man leen dëgg la du ma liyee non mais benn couverture bu ma doon utiliser la ñu ne ma aussi naa ko bàyyi bi ñu ma ko waxee aussi naa ko bàyyi ñu ne ma nekk élève officier taxul tamit nga bëgg ne liena liena et tout ça parce que même ba ci armée bi avec le général Birame Diop euh, ses proches demoon nañ ba may jege ba ñi ko jege demoon nañ ba may jàppale mais bi ñu xoolee vérifier tout ça ñu gis na bon j'ai très tôt le truc après ñu ñu ñu rocc ma daal. d'accord yow bët yi daf laa daf laa dab wala da nga ko ma dab. daf ma dab lan la dawee. bon boobu maa ngi ndar di jàng maam sama benn xarit boo xam ne. Euh, dañ doon wàcc si escalier yi ñuy bëri nii mu conc ma foofu la sama premier eh, ñàkk gis jóge fekk daf ma gaañ ci bët droite bi après par la suite may sox ak beneen bët bi ci laa def sama examen et tout ça ba ni may defee sama formation mais ñàkk gis moom dafa jékki-jékki ñu hospitalisé ma au niveau de Dantec euh, hospitalisé mais doxantu ci jardin mu jékki-jékki daal mu mel ne flash lañ ma sànni mu def taf gisatuma dara 9 2008 boobu ba léegi nag am naa chance su gisaat nag comme li wax mais il m'a fallu une opération de 65 millions mais man dama ne gis du importance si man man mooy man dama bëgg liggéey am lu ma casé sama expérience bi ma am ma exploité ko ci lu positif pas ci lu négatif. mais man man dafa mel question mooy positif est-ce que réellement non voyant réellement. effectivement damay mbëkku ñu bëri sama koñ dañ naan gis damay gis. dañ naan agence secret day gis wala yooyu wala dafa am mission bu muy doon day gis te effectivement gisuma dara yow mi jàkkaarloog man mënuma la ne couleur bii nga mel wala nii wala dara. parce que li ma jaaxal mooy man bi ma ñëwee te ma tegaay naa damay dugg fu ne Dakar amul lieu boo ma xam waxul te duma ko xam damay dugg duma yor kat duma yor dara duma sol sax lunette. te gisoo dara te gisuma dara te lii ni médecin mun na prouver ne man du ma gis ndax am na médecin yu may opéré et tout xam nañ ne man du ma gis. parce que xam nga tey jii doo gis ba pare di taytayal du mbëkk wala daal te pourtant damay mbëkk damay fa xastalu parfois ma fel nit mu ne ma xoolal ni ma gaañ affaire yooyu foog ne damay gis bu siggee xool sama vision rek dina xam ne kii gisul. donc bi la bi la bi la muur bëti dabe. Hmm. ci la sa xel dem ci ci ci dóor bi bu baax kay pareegul de. man dama réer tey. Ah. waaw. waaw hmm. ah, man tey moom dama réer parce que kii ni muy waxee ni mu correcté non non non dem ba mu jeex. waaw ci samedi passé. dafa dem dafa dem ci mbay Saint-Ger déglu ko ni mu ko doxalee. loo doon def kër mbay Saint-Ger Thiès. Oh, waa dafa am benn clinique bu ma doon fajoo fii Ndakaaru ñu am fekk boobu man am na lu ma dajale parce que amoon na ñu ma jàppale. am na ñoo xam ne ñu bëri jàppale woon dañ ma wax dëgg yàlla. ñu jàppale ma ma jël xaalis bu def ko sama compte ne bi pas je avec le docteur sama xarit bi ma doon àndal xam naa peut-être mu am idina ah dafa jël xaalis bi ko kii naa jaar ci kawam man su ma daan def chèque boo xam ne ci sama tur la ne sama compte man de la bi dem dugal ay chèque yu baaxul maanaam yow da nga doon dóor sa la jeex na tàkk ma dugalee chèque yu baax moom mu dem jël chèque yu baax yi dugal ko ba clinique bi woo samedi bi passé ma dem kër Mbaye mun ma moom cent mille francs la mën a participer. léegi naa ko jox numéro docteur bi comptable bi ak yooyu ma xam ne da koy vérifier ma jox ko man sama numéro man j'ai deux numéros ma jox ko sama benn numéro bi may génn këram rek ci la woote ci numéro boobu man maa ko wéy en personne. man xam naa ne bi ma wootee rek xam naa ne moom mooy woote sama réflexion may na ma ne moom mooy woote pour vérifier. parce que en général da ngay dem am na bonne volonté yoo xam ne boo demee si ñoom ñoom ils cherchent pas avoir dañuy li nga laaj dañ koy yëkkati rek jox la ko. mais dajale affaire yi nànk-nànk ma dem ma ne ko monsieur Mbaye mu waa ma ne ko dama war a opérer génnee papier war ko ne ko dañ xaalis bii dama ko yoreel clinique bi. mais fay naa ko mais lii laa dese ak yooyu noonu mu léegi kañ la war a opérer ma ne ko lundi mu ne ma léegi rek dinaa ne ko amul oto bi rek mu woote ma moom mën na mën na monsieur Changer Mbaye Changer Diouf damay vérifier affaire kii bi ma ne ko wax noonu la demee mu ne ma kon léegi dinaa ko jàppale un chèque de cent mille francs naa ko endossé ci turam ma indi ko à clinique mu waaw. bi ma xëyee leen di pour lui mettre la pression ma woo ko ne ko monsieur Changer man la laam bi nga doon waxal man may yow la waaw dinaa la rappeler. ci saa si ci la yëkkati téléphone am vérifié au niveau de la clinique ñu ne ko effectivement booy bi yoral nañu xaalis mais warul opérer booy bi yoral nañu xaalis mais warul opérer. waa mu ne leen man daf ma ne dafay opérer am na lii am na lii ak yooyu noonu ci saa si ma woo ko si téléphone am mu xamal ne ma yow yaay ma ne waaw mu ne ma man je suis là avec laam yaa ngi dégg dinaa la porte plainte pour diffamation ak yooyu noonu ma coupé sama téléphone ma yëgituwaat sama téléphone woo ko ne ko monsieur Diouf ma ne ko am ah, ma ne ko yéen ah, naa dem si autorité daf may def faux promesse wala dara moo tax ma fen la mais man je suis quitte conscience parce que clinique bi ñoom tey boo vérifié woon parce que yor naa papier yi wane ne dama leen yoreel xaalis je les dois 3 millions 300 yaa ngi dégg dinañ ko wax mu coupé ci